Sénégal salaamaaleykum mbokk diaspora seen xarit seen mbokk lamin Gueye ñu gën koo xam le président Lamine Gueye mooy ñëw fii ci Elvision Média di leen présenter émission bi ñuy wax nanu ci wax yéen téléspectateurs yu Elvision Média maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jàllal loxo émission bi nag. li ko tax a jóg mooy di wax ci lépp loo xamante ne nii ñor na Sénégal ñor Sénégalais yi mooy ñi nekk Sénégal ak ñi nekk bitim réew waaye tey li ñu koy demaaree mooy dañoo bëgg a waxtaan ci suñuy valeur waaye dañoo leen bëgg xamal ni lépp lu ñu fi waxtaanee pour sénégalais yëpp am si jariñoo si la waaye nekkul loo xamante ni suñu xam-xam la ñuy waxee dañuy waxee rek suñu xalaat après ñu waxee ba pare ku ci nekk ci yéen joxe xalaatam ñu boole ko pour Sénégal jariñoo si tey nag dañoo war yéene waxtaanee valeur. moom la ñuy démarrer su ñu nee valeur dañuy commencer ci biir kër yi génn ci mbedd mi ba dem sax ci bureau yi lan mooy valeur sénégalais bu njëkk valeur yi ñu amoon nga xamante ni dañ ñu koo nawe woon naw ñu si bii ci fii ci biir réew mi naw ñu si bitim réew suñu valeur yooyu moo commencé yàqu il est nag nit ñi jug musuñu see jug di ci wax waaye dañuy continuer di ci wax lan mooy valeuru sénégalais dëgg dëgg dëgg valeur sénégalais sénégalais dafa war a am jom sénégalais dafa war a am fula sénégalais dafa war a gëm boppam nangoo liggéey comme nit ñu nawe woon bu njëkk tubaab bi da daan déplacé wu ñëw Sénégal ndax lan valeur yi mu yi nu amoon léegi nag tubaab bi ñëwatul parce que gisatu fi valeur yooyu ndax ñun léegi dañoo banaliser suñu bos dem ci valeur yi tubaab bi roy tubaab bi ba dàq loolu moo tax tubaab bi soxlaatul sax ñëw senegal sénégalais yi. sénégalaises yi yéen ñi nga xamante ni yéen a toog ci kër yi ngir yàlla li laay war a suuli nañu yaraat suñu doom yi nañu xoolaat éducation bi ci biir kër yi nañu xoolaat éducation bi ci école yi xale yi léegi portable ci biir kër gi portable ci école bi portable ci mbedd bi loolu moo tax sunu éducation yàqu na valeur bi nag boo déggee ñu koy waxtaanee tey c'est parce que gis na li xew fan yëpp ci dëkk bi sénégalais amuloon fitu toog tiim sénégalais di ko rendi sénégalais amuloon fitu tiim yaayam di ko saaga sénégalais amuloon fitu génn ay cëram di ko bazarde ci mbedd mi léegi loolu yëpp ñu ngi ko fi commencé gis waaye lan moo am solo nan la ñuy def ba loolu deñ nañu commencé ci kër gi papa bu xëyee yaay nga xamante ni moo des ci kër gi yaay dafay woo doomam lan moo tax yaay yi léegi du ñu waxtaan ak seen njaboot lan moo tax yaay yi léegi su papa demee ñoom ñu xëy dem lan la ñuy dàq te li ñuy dàq mënuñu koo jot dama ni sénégalais sénégalais nañu xoolaat suñu bopp te xam ni dañ ñoo jox cër ci àdduna bi cër boobu ñu ñoo ko war a préserver yar suñu njaboot yi ba nga xamante ne ni xale bi bu njëkk dañ la daan yar soo génnee xàmmee sa moroomu papa xamee sa moroomu yaay soo duggee ci bus su moroomu yaay jógee ñëwee nga jug may ko mu toog sa moroomu baay bu ñëwee nga jug may ko mu toog soo génnee ci mbedd mi di def naka sudul noonu sa moroomu baay su waxee nga tëj sa làmmiñ noppi daal di def li mu wax mais léegi loolu amatul xale yi xàmmeetuñ seen papa xàmmeetuñ seen yaay mais dama ni il n'est jamais trop tard ci fi koy nit ki dafa bëgg a def lu baax nañu yaraat sunu njaboot yi defaraat jikko yi xoolaat sunu doom yi nan la ñuy utiliser seen téléphone yi encore une fois ci biir kër yi c'est très important télé bi yàq na suñuy valeur portable yi yàq na suñuy valeur est-ce que jar na ko déedéet man dama ni jaru ko am na nag ñu ni bu ndox tuuroo an bàq des am ñu ni déedéet nañu rootiwaat rootiwaat bi mooy delluwaat ci suñuy maam sëñ Touba liggéey na fi loo xamante ne nii mën nañ cee développer Sénégal mën nañ cee yar sunu njaboot maam Alaaji Malick liggéey na ko fi Baye Niass liggéey na ko fi kon lan lan war a jéggaani dara Sénégal encore une fois damay wax ak papa yi papa yi nga xamante ni bu ñu xëyee cinq heures du matin balaa ñu duggaat seen kër minuit seen doom yi xàmmeetul leen sax accordé wuñ seen doom yi benn importance loolu moo tax xale yi léegi am fit balaa may dee ñu naan circulation bi madame lii madame lële déedéet nanu bañ loolu nanuy teel a wàcc dugg suñu biir kër yi yar suñu njaboot yi parce que ñun suñu yaay yi dañ ñoo yaroon suñu papa yi dañ ñoo yaroon éducation boobu ñu defoon si ñun lan moo tax ñu ko mën a def suñu njaboot yi war nañ koo mën a def suñu njaboot yi te bañ a bàyyee suñu doomi télé bi ak portable yi rek ñuy roy tubaab bi te royuñu si tubaab bi lu baax parce que tubaab bi portable mu ngi si liggéey di ci def lu baax même bu dee am na ñu si def lu bon mais ñoom loolu ñoom la concerné télé bi am na lu baax am na lu bon balaa maa nag ñu jël Sénégalais yëpp yaakaar nañ ku ci sa doom seetaanul Mickey du xel mi du baax alors que déedéet parce que léegi micro yi day yàq am na ci micro yoo xamante ni dañuy fóonante dañuy def guerre te yooyu yëpp day yàq xelu xale pourquoi mënuñu dellu di seetaan ci télé yi télé yi fi nekk yi nga xamante ni mooy télé sénégalais yi am na fi télé yiy teg ay thèmes yu am na télé yu dawal émission yu baax ñii di dawal ay théâtre yoo xamante ni am na njariñ yooyu yëpp buñ ko boolee ci biir kër gi mën nañoo amal njariñ waaye toog rek bàyyi sa doom ak télé bi su ko neexee mu dugg novela seetaan su ko neexee mu dugg seenu prono seetaan su ko neexee mu seetaan micro boo xamante ne nii amalu ko benn njariñ loolu yarul xale nañu defaraat suñu jikko yi buñ koy wax mooy sunu doom yi école ba bu njëkk maître élève da ko daan jox cër ndax maître su dóoree xale xale bi su ñëwee ko du ko dina ko ragal wax mais gis nañ fi léegi maître bu dóor xale mu ñëw wax ko papaam papaam daal di dem ci école bi dóor bi pour lan ana éducation ana éducation nañu yaraat suñu njaboot yi encore une fois valeur u sénégalais li ñu ko xamee woon mooy am kersa Sénégal léegi kersa amatu fi Sénégal léegi kersa amatu fi bu njëkk ba ni doon xale balaa ngaa gis awra di nga sonn lool wala sax xaaj ba ngay gis waaye jamono yi ñu toll nii lépp dañ ko banaliser ci mbedd mi. loo bëgg a gis fi nga toog da ngay toog sa doom mu toog ci salle bi yor téléphone yow ngay seetaan télé wala nga concentré wu sa téléphone madame concentré wu ci téléphone xale bi yor téléphone am xamoo lan lay seetaan ay taatu neen gese lay seetaan ngeen baal ma ci kàddu bi est-ce que loolu rafet na nañu defaraat jikko yi nañu defaraat jikko yi suñu doom yi nañu leen yar parce que ñoom ñooy màgg ëllëg bu ñu màggee ñoom ñoo war a yor réew mi mais lii ñu gis nii ci Sénégal gii fii ak 20 ans Sénégal dina raw États-Unis ci lu wala mu raw Afrique du Sud ci bon parce que yiñ fii gis bërki de moo njaay la ñu jàpp xale yi tëddee ko ba pare ray ko dugal ko ci saaku mais loolu amul amuloon Sénégal lan moo waral loolu di am parce que jikko yi ñoo yàqu ñu ni déetawaay ci même jour bi ñu jàppaat beneen xale rendi ko ça veut dire que jikko yi yàqu na kenn xamul li lan la na leen ci wax képp koo xamante ni nag am nga ci sa xalaat bu rafet war nga ko cee mën a wax parce que wax rek lañu am li ñu tax a jug nag mooy xool loo xamante ni suñ ko waxee sénégalais bi defaru ci ki nekk bidim réew te nekk sénégalais defaru ci parce que ñi nekk bidim réew aussi ñoom tamit am nañ ci ay part de responsabilité bu rëy parce que dañuy gëmloo sénégalais ni tubaab bi ñoo ñu gën ci ko tubaab bi ñoo ñu gën a fidèle tubaab bi ñoo xam mbëggeel alors que yooyu yëpp c'est pas vrai suñu papa yeeg suñu yaay dañoo bëggante woon te roy ñu woon tubaab bi mooy ñun am ñun suñu papa yeeg suñu yaay amuñu ko woon te danoo amoon yar mooy yu ñu am suñu papa yeeg suñu yaay amuñu ko te suñu papa yeeg suñu yaay dañoo amoon kersa kon nañ leen delluwaat suñu cosaan nañ leen delluwaat ci suñuy valeur mooy sénégalais dafa war ñu am yar am teggin am kersa am sutura ndax sutura kat dafa baax doomu aadama bu amee sutura ñàkkul dara bari na ku lay romba kaat-kaatam di dem yor alal ju dul jeex amul sutura chaque jour ci ay coono rek lay nekk mais bari na koo xamante ne nii yàlla de salarié kese la saa yu xëyee day dem liggéey wàcc ñëw uuf njabootam ci sutura yàlla mu ngi koy soo kenn dégg nit ñi sax dañ koy ñee kon nañ leen delloo delloowaat xel yi te delloowaat jikko yi nan ñu xamee woon na nga xamante ni moom lañ yare woon sunu maam yi ba ñu doon dégg fu sori tubaab yi doon ñëw fi naan sénégalais yi dañoo am valeur sénégalais yi dañoo am yar sénégalais yi dañoo dañ ku leen gis respecté leen mais léegi dëkku arab boo ci dem wala dëkku boo ci dem dañuy moytu sénégalais yi man li may wax xam naa ci dara dëkku arab boo ci dem boo nee sénégalais la ñu moytu la ndax lan parce que jàpp na ni dangaa ñëw pour dóor leen bañ nañ ko ba la moo dóor léegi moom dañ koo sax nationalisé léegi ku wax rek ni dóor ku wax rek ni dóor mu mel ni dóor dafa nekk lu baax mais ban façon dóor fekk nit ki mu liggéey alalam ba nga xamante ne ni moom moo ko liggéey ñàq ko sonn ci lool nga ñëw ci ñaari fan nga dóor ko maanaam nax ko jël alalam dem sa yoon di ko tëddee ci hôtel yi tëddee ci auberge yi jënd ci oto di ko tiitaroo loolu du ndam nañ defaraat jikko yi encore une fois foofu laa ko yemale pour l'instant ba ñu dugg ci beneen thème maa ngi leen di sant di leen gërëmu waxewu ma xam-xam sama xalaat rek laay waxee lépp lu ma si juum ngeen baal ma ko bëgg a defar moomu tax a jug ànd ak El Vision Média fas yéene duggaat ci yeneen thème ak yeneen bagage fas yéene wàcc ci terrain bi dinañ dugg biir présidence dugg biir assemblée nationale dugg ci maire yi wàcc ci ci taatu place bi wax ak fàqamaan yi dem ci apprentis supérieurs yi wax ak ñoom fépp fu sénégalais nekk dem ba mbëbës wax ak fàqamaan yi fa nekk ak buujumaan yi fa nekk parce que ñooñu aussi dañoo bokk ci Sénégal ndax Sénégal nekkul rek da ngay doon doomu ministre wala nga doon ministre wala nga doon doomu directeur c'est parce que yow yaa bokk ci Sénégal Sénégal ñun ñii dëkk ci banlieue bi ñi nga xamante ne nii yàlla def na seen loxo jotu seen ginnaaw ci Sénégal lan bokk nañ leen ci boole ku leen ci boolewu ñu xam ni ñoom dañ cee bokk parce que bu élection jotee ñun ñooy dem voté ji ñooy xool ku ñu neex ñu fal ko émission bi nag na nañu ko ñëpp képp koo xamante ne nii bëgg nga joxe sa commentaire demal nga abonné ci Elvision Média nga dugg ci commentaire yi nga joxe sa xalaat bépp thème boo xamante ne ni ba ngeen ñu développé ko incha allahu rabbi su ngeen ñu ko waxee dinañ ko développé yéen ñëpp ngeen jot ci parce que avec Elvision Média Sénégal yëpp dañ ciy gis seen bopp wasalaam.